yàlla dem ahmadu moo di représenté julli a bi mooy soo taxawee kabar a bi soo rukoowee mim bi soo sujjootee daal bi soo siggee ci sujjoot ba waaye nag yàlla lii de kenn mënu ko am lu mooy ko am fatxu mooy fay faw nga am fatxul akbar am fatxul mubin am fatxul xarib yàlla tijjale ci zaahir ak baatin nga mën a am xam-xamu lële ah yow de yow dañ ñëpp di jaamu yaay yàlla de yàlla yow lañ yaakaar tey yàlla suturaala Sénégal ci barke liñ commencé gis yàlla ci taw bi wàcc biig yàlla ci sedd bi démb bi ak sedd bi tey bi defal ñu taw féex waa Sénégal sonn nañu war ñoo génn nag ci xat-xat yi dugg ci xéewal ci barke liñ ñu wan fayday fatuhu la te yow yaay borom bi yow rek la ñuy jaamu